jërëjëf mbokki internet yu suivre Sunugal 24 point net ñu leen di bu baax baax baax di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal sunu bopp. boo demee Refane wulli nga fay fekk boo ñëwee ndakaaru fekk fi wulli muy wulli bu Sénégal àdduna wërngal këpp ñu bàyyi ko rek mu nuyoog waa réew mi ci àdduna wërngal këpp ci biir Sunugal 24 point net moo ne moo frère wulli maa ngi lay siyaar. asalaamaaleykum euh, maa ngi lay ziare Diaw. di sant yàlla sunu borom di ju Seydina Mohamed di sant sama ñaari waajur di ñaanal sama papa yenn na saabam yokk ay leeram taal ci barkeem di ñaanal sama yaay mu yàgg fi loo ànd ak wër di ñaanal ba ci kanam kanam kanam kanam di sant sama sëriñ sama wasila muy sëñ Moodu xabaan Mbakke di sant borom daaru maam Cerno Birahim di sant sëñ Moodu Karaam Mbakke di nuyu waa Sénégal gépp di nuyu waa Sunugal 24 di nuyu aussi sama internet yi nekk ci tub bi vraiment waa itali waa Espagne waa marok ñoom bu naa ma laay ñu nekk Maroc maa ngi nuyu waa marok waa Turquie waa Mauritanie waa Algérie waa Nigeria ñëpp parce que ñëpp a a may woo kon képp ku ne ci diaspora bi rek Italie Espagne États-Unis d'Amérique Maroc bu naa ma laay yéen waa Maroc Espagne Mamita Kara yéen ñëpp maa ngi leen di siyaar bu baax di nuyu sama xarit sama doomu ndey Mouhamadou Kara Mbooj di nuyu Baye Saal Saalu Seen Baye Saal bu pikin di nuyu Jamil Sam bu baax a baax a baax a baax a baax diggante ak sénégalais yi sa diggante ak sénégalais yi bu li ñu ko bëgg lan moo waral loolu. sant yàlla loolu loolu loolu dama ciy sant yàlla sunu borom parce que lépp yàlla sunu borom moom moom moo ma ko may yàlla moom a jël duggama ci xoli doomu aadama yi alhamdulilah di sant yàlla di ñaan mu yokk ko parce que jaww macha allah waa Sénégal ñëpp dañu may supporter waa diaspora bi ñëpp diaspora bi man chaque vidéo commentaire yi laay xool rek. saa ma defee vidéo commentaire yi laay xool vraiment ma xam ne vidéo bi baax na ñëpp ay ànd ak man ñi di ree parce que loolu lañ soxla Sénégal dañoo soxla jàmm ak xiiwal la ñu bëgg di wax gars yi dindi stress bi di kaf di ree loolu la ñu bëgg ah surtout gars yi na ci diaspora bi dañuy wàcc ñëw nam Sénégal dugg YouTube gis wulli di béggee kon képp ku ne ci diaspora bi rek ñëpp ñëpp maa leen di nuyu góor jigéen mag ak ndaw. sa dernière sortie jamaïcain moo ko tëggoon le promoteur de l'avenir di caatu promoteur ya ah. foofu la ca Gambia digganteem ak Lirou Diane xale géejawaay boobu làmb jooju ni mu demee wulli bi biir làmb jooju lan la ci jàngal waa sama komaak euh, magatam Diane bëggatuma sax di wax ci Lirou Diane parce que bu dee amoon nañu combat mu bay fii combat bi dem du ma sax bëgg a di sawar di wax ci moom. ñëwal ci combat bi. ma ci jógee te am naa ci njàngat parce que ci commentaire yi ngay xool. Mhm. ñëpp ne ma dangaa waroon bi mu dawee ba ci saaku yi nga bàyyi ko nga ñëwaat ci géew bi am naa ci njàngat moo tax bi ñu ñëwaatee ma ne jamaïcain na ma ko joxaat Dakar pour la ma manqué woon Gambie ma. Mhm. rectifier ko Sénégal parce que xam naa ne fu dix dix lu jaan maa ko mën fukk fekk bu nëmbaree vingt combat ma daan ko yëpp mais Gambie xelu xel jàpp na ma ak tàngoor bi fukk de jeunesse bi ba mu tappale tappale tappale ba ngaa jox ko victoire bi mu naqari ma nag mu naqari ma parce que dafa bari wax mu ñëw Dakar di takk rajo yi di wax di wax mu naqari ma nag mën a jamaïcain na ma ko joxaat Dakar pour ma won Sénégal yi ne leen dama juum Gambie ma bëggoon koo jàpp Sénégal dóor koo dóor a dóor a ba mu tëdd jàpp ko daan ko loolu laa bëggoon tëggaat combat bi ah, pour ñu leeral ko fii ci arène nationale ci Ndakaaru dégg ne Lirou Diane tukki na combat bi des une semaine mu bàyyi fi combat bi dem tukki loolu bi ko wulli yëgee psychologiquement lan la def ci bi ma ko yëgee miti na ma trop parce que nit damay wax Sénégal yi dama seetaan jamaïcain xele la xele buy góor da nga koy may loxo mais bu ko pakastaan parce que si naa ma man man sax su ma wax ko jamaïcain man ku ko bëgg laa parce que ku am jom la ku am fit la aussi neexul direct nag mais ku am jom la du tooñ ku ñeme engagement ku ñeme engagement ñu am fit ñeme engagement xale bu mel nag di taxawal lu mel ni kenn waru ko yàq noonu waru ko yàq soxor waru ko yàq kenn waru ko yàq comprendre nga parce que jamaïcain bu bu jëlaatee maag liiru jaan andi ñu Dakar pour le huit. kuma su ma jigéen journée mondiale de la femme. dem ci Pape Sow. defal drapeau beeg lépp kenn waru ko yàq Lirou Diane nag combat bi moom moo ko yàq ak jéey patron dañu wax dañu wax. jéey ak waaw. na la ko jéey yàqee. non merci parce que Lirou Diane amul lu mu dagal biyee na wax dëgg jéey moo ko dagal biyee mu dem parce que man jéey naa ko mu ne dafa toog TFM dëgg ñuy wax combat bi mu naqari ko. combat bi. waaw sa diggante ak Lirou deuxième fois moo jëkk toog TFM. fekk boobu sama papa gaañu na. man sama suuru dëju papa la ma jamay kay jox avance bi muy ñëw Refane mook Liou Diane ñoo ànd ñu waxaale ba d'accord Liou Diane ne ko joxal wuli avance ca dimanche ba Liou Diane moo toog TFM moo toog TFM devant Lamine Samba Lamine amut caaxaan Liou Diane ne ko sama ko baag wuli taxaw na dakaar le 8 mars taxaw na wuli dañ ko aj gambi mais fii dañuy nangu licence am liu jaan ne ko combat bi taxaw na jamaykat taxawal na ko kon loolu kenn waru ko mën a kenn waru ko war yàq comme ni ma ko waxee léegi noonu war koo yàq soxor war ko yàq benn doomu aadama warta yàqal doomu aadama am comprendre ma ma delsi ci liiru jaan man liiru jaan yàgg naa koy topp di ko laaj mu lànk ne du bëre ak man parce que boobu xam na ne man awma caaxaan te moom combat yi tam mooy combat tappale ak combat caaxaan daaw bi ma amee bës na waxte dëgg maag big pato combat bi am coow lool boobu liw jaan xewi na bu ñu waxantee dëgg bu waxte dëgg liw jaan liiru jaan demoon na moment boo xam ne kenn waxatu ko fenn kenn dëggatu ko mu xewi carrément parce que liiru jaan nag du xale mag la yar na bëre mag big pato ko bi am coow lool jamaïcain moom ci xelam mu rafet mu ne wulli bu daanee big pato mook liiru jaan monta day neex boobu sax man yi yëguma jamaïcain woo liiru jaan ne ko dama bëgg sa combat wulli bu daanee liiru jaan sax boobu gëmewu ko. je très bien moment boobu ñuy euh, Jamaïcain mi ngi bëggoon sa tournoi yow ak Lirou Diane ak Adama Diouf ak Big Pato ak Big Pato. daaw bi ko Jamaïcain ne dama bëgg bu wuli daanee ma jox la wuli gëmewu ko sax parce que boobu kenn kenn diggatu ko boobu benn benn site internet du ko seeti Jamaïcain woo ma ne ma damaa bëgg boo daanee. ma jox la liiru jaan ma ne ko yow sama rak nga li ma waxoon dem mooy wax tey jamaïcain du ma ko trahir parce que yàlla moo ma boole ak moom samay mbir yëpp dox macha allah man du ma trahir doomu aadama ma ne jamaïcain am problème sama combat ak Big Pato avant muy jot liiru jaan dem lu TV signé fa ak jamaïcain jamaïcain jox ko avance jox ko sponsor sama suuru combat ak Big Pato mu ñëw stade toog ci stade bi bi ma daanee liiru jaan sax gëmoo ko daa dafa kaa bi taxaw na kaa bi taxaw na. man boo xoolee. waaw waaw sa digganteeg Big Pato la woon. boo xoolee bi nga ko daanee. bi ma daanee Big Pato liiru dafa ciblé ne ma maa ngi tax parce que boobu moo bëgg bi rek man. pour xew man boo xoolee bi ñu ma nee yaa ak liiru jaan taxaw na ma ne man bëriwuma ak liiru jaan parce que du ma ay dof boo xoolee sax YouTube bi mu ngi ci ma ne ma ak liiru jaan. mu fekk ma ca palaato ba boobu maa daan mu fekk ma ca plateau ba may wax mu ñëw ba ba bëgg xew bëgg bës ma ne man man du ma wax ca plateau ba la ma fekk may wax mu ñëw toog naan maa lu wuli ma ne ko bëriwuma ak yow parce que boobu maa ko gën a xew foofu ma ne ko bëriwuma ak yow bi bi ma setee promoteur yu bari di ma woo di ma proposé ay mbër ma woo jam ne ko duma la trahir comme li li ma waxoon mais bu bëgguma liiru jaan parce que liiru jaan vraiment màgg la te amul fii mu tëlu xewut boo ko daanee yàq dina naan yaa ko mën jox ma keneen champion la laa bëgg actuellement. ne ma dimbali ma ngir yàlla. billaahi jamay ne ma wuli dimbali ma ngir yàlla parce que liiru jaan jox naa ko sama avance bopp pa pa pare waaw hmm. kon foog nga bëri ak moom. lii moo tax ma bëri ak Liiru Jaan man mais kon sa bëri ak Liiru Jaan jam ne ma dimbali ma léegi ma accep ma ma ma ak Liiru Jaan combat ma gën youtube wax Liiru am bës tuuti xam nga lam di am bës lam di am bës la la am bës kooku Liiru Jaan daaw képp ku ko xam ñu bëri laa ci youtube bi ak ci Sénégal ak ku ko xam sama combat ak moom nga ko xamee kon nag loolu waru a yàq comprends nga parce que ay promoteurs yàgg nañu fi di ko jox ay combatto kenn xamu ko kon bu yàlla jaalee man ak jamaïcain jamaïcain jox ma ko ñëpp xam ko ci loolu waru ko woon yàq comprends nga parce que fii mu tollu dégg naa jéey mu naan jamaïcain dafoon na jaa ci manto daaw bi mu koy wóoli TV jaarut ci jéey jamay kenn dafa ñëw jox lu jaan avance lu jaan signé ko mais ku xew rek mbara nga tëkki bari ay pataron bari ay mbokk loolu yàq Sénégal Sénégal da ngay gis tey wulli sax xew rek sensé man loolu man loolu rek laa bañ man ni ma meloon dem noonu laa mel ba léegi lu jaan nag dafa xew rek sensé taw dara war koon jaral ci àddina sancé même buy même bu bu ñëw làmb ji ma door ba mu dee sax war naa mën a ñëw wan ne ngoram xam ne jamay keem yi jël merci mu ñëw xam ne jamay keem yi jëla war na ko fu mitee miti kon tey bu bu demee ni na ñëw rempli contrat am bu la wiitee mu bëre bu bëggee dem États-Unis lan neuf fa fekk la dix mu teg bii dem États-Unis ñun ñëpp am ay visa maa ko tik am visa mais man dama demaguma kenn newu ko buy dem fenn mais na toog boo kabaa bi jàll mu dem wa ilaa bi ko jamay kenn yaa ko wulli mu ne ko kat jam damay dem États-Unis mais en grande surprise li liiru jaan foo ko woo mu ne damay bëre foo ko woo mu ne damay bëre ku ko woo mu ne damay bëre ñëpp ñëpp la wax dem ma tukki xam nga nit man li dama ci déranger mooy ni mu wax gars yi ne leen dem ma fen man woon naa ko ne ko mbër dégg naa da tukki mun na dem fen xa xool affaire loolu trahir la quoi dafa wor man d'accord naa mu moom mu dem États-Unis ah mais na ne kat bu wule ma damay dem États-Unis d'Amérique wuutala wuli beneen adversaire man damay dem mais jàmm woon na ko mun ne ko jàmm buy wutaa wuli keneen man la wiit bu soobee yàlla damay dig bëre à la surprise ma xëy ñooñu jaan tukki na vraiment loolu moom man rafetluwuma ko rafetluwuma ko to itam Jamaïque deful dara liiru jaan la ak jéey jéey moo ko dagal billet pour saboter mais senegal nañu bay saboter bésu jaambur ak di yàqalaate parce que yàlla moo nu daq yàqal te du yàqalan ah. kon nag yàlla bu nuy defaral nit ñi aussi nañu bay saboote bésu nit ak di yàqalaate loolu moom rafetluwuma ko liiru jaan kenn newu ko buy tukki ñun ñëpp am ay visa mais mbir yëpp am ay visa këccëb këccëb bi mu bëreeg Alaaji Mbay daa am visa bi mu bëree pare tukki Lirou Diane am na visa 6 mois na ko ñëpp xam même même bi may break moom Gambie am na visa am na visa boobu même tukkiwul waaw kon la moo tax ñu bàyyi ba rawax bi taxaw ba des deux jours Lirou Diane dag bi dem États-Unis non état bi dama liggéey parce que comme li ma wax léegi combat Gambie bi. dama ci jëlee naqar woo xam ne dama bëggoon a ñëwaat dakaar won ko ne maa la mën fuuf ma ne dama la ne même même même booy ñëw sax di dee joxe sa bakkan dee na nga dee ci ngor comprend nga wa ilaa nga ne kat vraiment mënuma mënumaa bëre wuutala wuli beneen adversaire bu yàgg comprend nga mënuma bëre jamaïcain fii mu toll mu ngi annoncé wuli liiru jaan jabaykee affaire bi man dama ko ca yéeram di woo ñëpp di na ñëpp ñëw ca lamb ja bi mu ko defee jamaykee dafa woo Moustapha Guèye de ne moom laa lay jox. mais combat boobu lan moo koy sa diggante Moustapha. non yàquwul. combat bi yàquwul. Ah, mu non dañuy bëre mais combat yàquwul. ah mais foog nu ñëw. mais sama combat ak Tafa Gueye 2 yàquwul taxaw na. jamay kër moo ko ba mais à waa Fass ñoo xaw a kii quoi mais maa ak Tafa Gueye 2 taxaw yàquwul jamay kër ko ba parce que jamay kër nee na ma même liiru jaan parce que keroog liiru jaan daa dugg ci TFM mu ne jamay kër jubaguma ak moom ci kase te jubóowoon nañu ak moom mu bëgg yokkaat jam ne ma barke sëñ Bamba même même bu ma laajee deux millions dinaa ko fey jam di ko woo mu bañ koo woyu c'est dommage man jamaïcain barke sëñ Bamba dama am ci moom yar mande dama ko ñewental parce que da di xale bu ndaw di góorgóorlu kenn waru ko yàqalaa ah. kenn waru nit ñëpp a ko war a jàppale même le président da ko xale la promoteur yi fi nekk yëpp a ko màgg mais mu ngi def ambition di góorgóorlu kon jamaïcain ñëpp a ko war a jàppale benn promoteur war a ko yàqal promoteur nag léegi dafa bari clan ñi dina aw fii ñi aw fii loolu dong defarul làmb parce que lii lii ñu def nii moo yàq làmb nit taxawal combat di publicité publicité am nga dem ba fee yow yow mi patron kee nga daggal. sa mbër biyam mu tukki pour saboter lamu jàmbur loolu defaru lam lam di jéey moo ko moo dagal liw jaan bi nan nañ ko waxtu tuddee aussi comprends nga jéey mooy patron liw jaan liw amul lu mu dagg billet billet huit cent mille lay jar mais jéey moo na bay ba nu bëree ba noppi la 9 la 10 la 11 la 12 la 13 la 14 la 15 mu mu daga ko billet mu dem Amérique ah mais bay boo ko am des semaine nga dagal nit ki bi mu dem vraiment loolu saboote la man déggu si la rafetlu nga ko man saboote la promoteurs yi ñëpp ñu war a booloo ànd liggéey te bay xeex bi bu ñuy di xeex yi ñuy di xeex du lam du jëmale kanam to jamaïcain kenn war a koo xeex parce que da di xale xeexul kenn ah? xeexul kenn kenn war ko xeex nañ bay yàqalaate bi